salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp Abdou Karim maam activiste membre du mouvement Nitu Dëgg alors bëggoon def benn vidéo vite fait rek quoi wax si guinéen yi pël Fuuta yi respect bi ma am ci ñoom sama xalaat euh, ñu ay ngi bëgg yàgg nag tuuti damay wax ni damay delloo njukkal pël Fuuta yi les guinéens que gisuma raison bu tax ñoo leen manque de respect ci fii nii économie Sénégal pël Fuuta yi ñoo ko yor pël Fuuta yi ay mbokk la déjà déjà ñëwaguma sax ci espace réew bi nga xamante ni Guinée ci la bokk ñëpp ñu bokk ci quoi ñoom ñu war a nekk ay nit yu libre fii demal France nga xool ndax benn allemand bu nekk France dañ ko indil problème demal Allemagne nga xool ndax benn je pas kenn ku bokk Union européenne na am problème foofu noonu ñun ñu ñëw déjà nekk di woote CEDEAO ci nga xam ne nous sommes pas même pas d'accord ñu bëgg fi nekk di jàpp benn ethnie leen indil problème te ñoo xam ne dañoo am jom pour le dañoo am jom 4 la ñuy jub musuma gis Pël Fuuta bu nekk nervi musuma gis Pël bu nek bu nek tricheur bu sàcc musuma gis Pël bo xamanteni da ngay xey nek di nelaw ba 4 heures ba quatre heures si ngoon musuma gis Pël bu buy jaay yamba musuma gis Pël Fuuta bu nekk nervi mo raison bu tax ñuy manque de ces Pël quand on parle des papiers là ci maire bi bu ñu jëlee papier jambu diko jox keneen kan mo leen ko jox Pël est ce que Pël Fuuta ñoo dem ci maire yi nek fa jël sen papier jël papier jambu diko jox papier sénégalais diko jox ay guinéen donc il faut respecter les gens respecter les nit pëlëfute yi ay nit yu diñ nañ gëm seen liggéey gëm yalla ñoy jité ci jakk yi ñoy jité ci ñoy jité ci jakk yi ñoy sar liggéey yu bax yi liggéey yëpp liggéey bis bu ñu téye seen loxo rek moy lool alcorane bu bax bi sax pëlëfute yi ñoo koy jàng dañuy wante deug rek waxuma nak amul ñu jàng alxuraan amul ñu jàngal alxuraan Sénégal mais respecté leen pëlëfute yi Guinée bo top ay maam dugg Sénégal Sénégal bo top ay maam dugg Guinée kan mo mën takalé Guinée Mali ak ak Sénégal kan mo mën takalé ki donc nañu respecté pëlëfute yi man damay wax mention spéciale respect au au Guinéen te ngeen góorgóorlu gën a liggéey bu leen faale kenn te on va combattre Sénégal dañu leen may jàmm Sénégal ngeen am jàmm ngeen liggéey bu leen téye seen loxo Sénégal ay torox ndax du ñu liggéey du ñu ay liggéeykat jërë ngeen jëf wa saa su la